revenir à cette question de de de, de binationalité. Oui. alors euh, lan nga jàpp dañoo war a évoluer dañoo war a revoir les dispositions de l'article 28 euh, on est dans un monde euh, connecté socialement sociologiquement euh, connecté est-ce qu'il faut revoir euh, cette disposition ou est-ce qu'il faut la la laisser en l'état dañ ko war c'est-à-dire. nationalité sénégalaise rek nga war a am man pour loolu xaw ma naka la mën a def débat naka la ñu mën a concevoir ku ñuy ku ñu jiite am beneen allégeance c'est-à-dire tey bu fekkee ne ki ñu jiite Séné français la sénégalais la ak français bu toogee président France mooy président am même moom buy président sénégal kooku mooy président am loolu xel mën na ko jaar donc man ñu naan ay monde connecteur chacun ne choisir ku bëgg jël di nationalité jël ko waaye ku bëgg nekk suñu président na am nationalité sénégalaise dong moo tax ma ne xam nga tax man sama xalaat mooy la dañ ko war a yokk warul sax si président ministre de la république sax dañu war a exiger loolu. directeur général. en tout de la république. nga xam ne yow tu représentes l'état du Sénégal dans un département donné di négocier Sénégal di dem si yeneen dëkk ministre de la république sax. dañu war a dekk am exigence nationalité sénégalaise exclusive ku bëgg nag am nationalité jël jëlal sa droit la dégg naa sax ñu naan waaw pourtant ñu ngi wax affaire double nationalité te suñu footballeurs yi nañu bàyyi jaxase loolu amalgame la loolu dara interdit ñu nationalité mais sañ nañ ne suñu plus haute responsabilité réew pour nga nekk ko Sénégal rek ngay nekk loolu xel mën na ko jàpp